Isaaxa ñoo ngi lay nuyu di la siyaare bu baax di siyaare sëñ Touba Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne moo la fi yebal di wane ne sunu xel dal na ci moom bu baax xam naa du yomb nu wax ci sëriñ Muntaxa ndax ni mu demee waaye nit bu demee ba nekk ñi sëñ Touba ci kaw suuf man nga caa waxee nu la sopp waaye xel dal na ci moom ndax sëñ Cheikh Abdou Latif mi wax wax ji léegi dafa fekk ne genn takkusaan ci Afe Mbakke sëñ Muntaxa ma nga fa woon 2006 bii ñuy wax la booba nu bokk ci kàngam yi ànd ak sëñ Cheikh Aliou ci ndox mi mu ñëw fa yaakaar naa am na kilifa yu fi teew waaye li wér daal mooy sëñ Cheikh Abdou Latif moom ma nga fa woon ak euh, sëñ Cheikh Aliou sëñ Cheikh sëñ Bass Abdou Khoudoss sëñ Modou Abdou Wadoon mais ma nga fa woon ak ñu bari ñoo xam ne liggéey bi noo ko àndoon booba sëñ Mountakha jógee dafa daal dem sëñ Saliou wan ko ne ko dikkoon na aafe ci man kero sax la ma dénk dénk bokk mbàkki gépp kero gi la ma waxoon sëñ Cheikh Aliou mooy euh, wa jaaxal naa minal may kulli seen ayil daanaka ku ñu dénk ndox mi rek dénk nañ la bokk gi ci biir loolu ci lañu sëñ bi dénke loolu boobu ba tey sëriñ bi deñul di jàppale Cheikh euh, Aliou Cheikh ci ndox mi ak laneen lu dul ndox mi daf koo ñeewante sax far ba sëñ Cheikh xam na loolu ginnaaw nag sëñ Touba tey wax na yónnee ci moom sëñ Cheikh mi nga xam ne moo jottali kàddu sëñ Isaaxa ak pëstéefam bu rëy bi nga xam ne murid yëpp war nañ koo roy ci pëstéef mu jottali ko loolu nu nit nu nu nekkee ci wetu sëñ Muntaxa suñu xel day daal te man kat ku ma mën a àndal ci àdduna du ma wax lu ma gëmul waaw mën na maa sukk nag jombul te du ma sukk sax waaw manam lu ma gëmu dal du ma ci dugg kon maa ngi lay xamal ne sëñ Seex ci kaddu bi nga wax rafet na rafet goo xam ne ñun ñëpp ni àndoon ci liggéeyu ndox mi bégaat nañ ci sëriñ Touba waaye bégaat nañ ci sëñ Muntaxa ginnaaw loolu nag li nga xam ne mooy ñaareelu wax bi mooy sëriñ Mbàkke Abdourahmane noo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Koso Sarak ak njabootu sëñ Abdourahmane gépp ak njabootu borom daaru Mooti te njabootu borom daaru Mooti nun ñii noo ngi ci biir ndax boo demee daaru Mooti eh, noo nga ci biir daal ci gàttal ku ku war a xam nan demee daaru Mooti baax na ku ko xamul kooko ko jërul waxal sax ndax xamul lu bari kon bu yàlla dogalee nu ñëw fii nga yëgal ma ko ak ni mu demee ak sëñ Cheikh it loola yow bàyyi woo xel loola danga nu ko yëgal rek. ci sunu bokk gën bokk sëñ Touba bokk sañ Mor Anta bokk borom Daaru Moti bokk sëñ Afe bokk sañ Touba ma waroon a jóge fu sori ñëw bu dul loon sëñ Cheikh Aliou it kon yow itam noo ngi lay sant bu baax ci si jëf ju baax ji nga def waaye si jëf ji njëkke woo ko sëñ ko sa wax na wax ju rafet jàngal na nañu taarixit mais borom Daaru Moti képp ku am xel walla daray daw seeram wala nga bëgg sëñ Touba. mënoo ko ñàkk jox cër mënoo ko ñàkk bëgg wala boo ko deful xamoo dara te borom daaru mati mooy sëñ tuba te li mu téye ci yoon wi te ab téye la bu wér wax baaxu jàmbar du tee nga baax borom daaru mati eh, neexu la wax ci man daal ndax na mu demee waaw waaye daal noo lay sant wane ne borom daaru mati lu mu defoon ci diggam ak sëñ tuba fedd liwaat nga ci tey loo xam ne eh, am na daal Euh, sasu bees woo woo woo woo woo sasewaat am na bunt wu bees boo ubbiwaat kon nun ñi bokk ak yow borom daaru moti bokk yow sëriñ Touba bokk yow bi maanaa sëñ Morane Sali bokk yow Balaye sa bokk yow Maharam nun ñëpp noo ngi lay sant di la gërëm ci sa jëf ji xam ne nii la nit di jàppale euh, mbokkam nii la nit di jàppale ab sëriñam te jàppale nga sëñ Muntaxa jàppale goo xam ne Eh, te lépp moom la moo ko waroon a def moo ko bëggoon a def ndax keroog bi ma toogee maa ak sëñ Cheikh yi eh, ndax jataay yu bari jataay bu li may wax lu ma fekke la amul luñ ma ci nettali boo ko defuloon it moo koy xala def ba nga ko defee ba mu ñëwaatee di ko nettali maa ngi toog kon sant na la cant goo xam ne cant këyewul googu cant te loolu la nit bëgg ci magam loolu la nit bëgg ci sëriñam loolu it la nit bëgg ci rakkam mu muy muy fexe ba santanteeg moom cant ga borom sëñ Touba santoon borom Daaru Moti cant googee moom it moom mii sëñ Touba tey ngeen nekk jamono sant na la ko te moom ku bàyyi xel borom Daaru Moti la ndax xam naa bu baax a baax la ca des dañ koy ëmb noonu rek di ko bañ ko euh, leeral ndax i sarat tak fi yàlla laaxal ginnaaw loolu nag ma ñëw ci sëñ Cheikh Ali mi nga xam ne moo la yàlla dogal nu àndoon liggéey bi nga xam ne liggéey bi ni ko sëñ Mourtada si waxee rek waxaale ñu baree bari ay bokk yu baree ngi ci ma waxaale sëñ Cheikh ndax teewu fi te ci membre fondateur yi ci la bokk waxaale sëñ Modou Lo nga xam ne tey incha allah dana jël kàddu te moom itam mu am liggéey bu rëy ci dëkk bi te nu sekk ko ndax ba mu ñëwee affaire sëñ Mountakha dane naa jëlaat bis bi nun ñëpp nu ànd gane ko daaru mi yandoog moom mu wax fa wax jure rëy ja ñu wax ko wax jure rëy ja sëñ Modou Lo mais demaat na këram ngaabu nun ñi àndoon ñii ñëpp nu àndaat fa kon yëf yi noo ngi wax ci suuf noo ngi koy biral ci kaw waaye li ñuy wax ci suuf moo ëpp ci sëñ Muntaxa kon jikkoom jooju mu yor bàyyiwul kenn gannaaw gannaaw bi sëñ Cheikh Modou fàcc Xari yàlla dogal na dem nañ daru Karim di ko doxal noonu loolu lañ fas yéene woon bokk googu ak ndox mi nu fas yéene ko di ko doxal ci bokk gi ba ba mu daj ñëpp kon yow itam sëñ Modou liggéey boobu noo ko àndoon kon maa ngi lay nuyu waaye nag ma dellu sëñ Cheikh Ali rek sëñ Cheikh Ali euh, liggéey bi sëñ Mourtala wax na ko bi yàlla dogalee liggéey bi ak si ci sëñ Saliou ba yàlla dogal sëriñ Saliou dem sëñ Cheikh dafa jëppalewaat liggéey bi euh, sëñ Touba mi fi nekk mooy alaaji Mouhamadul Amin am na bis boo xam ne man sëñ Murtalaam sëñ Fallu sëñ Basirum sëñ Fallu sëñ Cheikh Ali alaaji Mamadul Amin noo bokk reer di reer ah, keroog alaaji Mamadul Amin wax na ko ne Cheikh mu ne mu ne ko loo gis ci dëkk bi mu bëgg a yàqu bu ma ci xaar defaral bokk moom rek moo fi ne waaw ñi moomoon yëf yi léegi bokk moom moo fi ne kon ku war a defar na nga defar luñ gis muy yàqu loolu sëñ Cheikh mën na koo seere loolu fekke naa ko waaye teewut dafa jëlaat ndox mi delloo ko ko mu jox ko rakkam jii di sëñ Moustapha mu yoraat ko ba ñu jëlaat ndox mi delloowaat ko ci loxoom mu yor ko ba ci sëñ Touba sëñ Samati lay mu wéyal loola. kon bii bii nga xamee ne moom it delloowaatoon na ko liggéey ba waaye du koo delloowaat ku ne dégg na kàddoom ba ci Cheikh Mamadou Mountakha mi delloowaatoon na ko liggéey bi mais sëñ Mountakha moom xalam dafa xalaatul waxuma la ndox mi sax. waaye laal Cheikh Modou Moustapha laal ci moom mu cay xoos dara wala mu cay xebet dara alhamdulilahi rabbil alamin bi sëñ Cheikh melee nam war a mel eh, ba bu gisoon lu ko naqari ci moom it du ko wax man xam naa ko ndax diggam ak sëñ Modou Moustapha waaye diggam ak sëñ Cheikh Aliou mi ak ñeewante gi ma am ci moom kon sëñ sax eh, noo ngi lay wan ne noo ngi àndaat ak ndigalal sëñ Saliou lam nu joxoon keroog yaakaar naa boo waxee da ci àgg lam nu waxoon du ma ci dugg ndax am na loo xam ne yaa ko dese ci wax ji waaye na sa xel dal ndax ginnaaw sëñ Touba wax na wax ju toll ne ji waxe la nii mu waxeeg yow eh, kon na sa xel dal nga xam ne liggéeyaloo kenn ku dul sama am da nga ci góorgóor lu baax di sant nag eh, monsieur le préfet maa ngi lay nuyu lu bari yow mi fi toogal eh, gouvernement Sénégal te xubbul watan bi na limaan nun ay sénégalais lañ du ñu ay Guinée kon noo ngi lay dalal bu baax a baax ci teewaay bi nga teew woyofoo ci jataay bi eh, di sant nag bokki taalibe yëpp nag bokki taalibe yi mooy bokki murid yëpp waaye bokki daaru manaan yëpp dégg nañ chef de village bi li mu wax ak ñeneen ñi wax ñëpp di wan ne daal eh, sëñ Cheikh def na li mu war a def ndax la ña doon def moom it ubbi na bunt bu yees lu ñu ne woon cinquante et la mu defaat ko 2008 eh, defe naa ne soixante-huit ans la war a doon loolu euh, booba moom yaakaar naa bu ñu ko yónnee sax du xam fu mu jëm waaye loola ginnaaw def na ko ba yàlla dogal mu agsi fii mu defaat li wat ca watit wa kon noo lay sant bu baax yow sëñ saa di la gërëm di la waxal ni wéyal rek wéyal te bul geesu rek loolu rek la sëñ Bay Jaxate waxoon noo la koy wax rek la sëñ mun Muntaxa waxoon it ci waxam ju rëy ne ku dem ma dem ku demul ma dem ah demal rek nun ndéng noonu noo ngi sawet daa bokk li bokk lépp te bokk gu nga téye ko téyin woo xam ne boo demee sa kër Moustapha Abdoul Akram a nga fa loolu lu rëy la kon loolu bu fekkoon ne xare bi ni ko sëñ ba waxee woon léegi ne bu ñu doon yëkkati fetal di xare ji eh, eh, boo tuut suñ kaw la ñuy jaar soog a dem kon nag noo ngi lay sant di sant sa taalibe yëpp di sant Badiane ak ñi ko ànd du siis ñoom ak ñu ànd ak yow ci liggéey bi yëpp yàlla defal leen ndimbal ba li ñu diggee ci ndox nga xam ne mënta a eh, diinu nasaafa sa diine ju wér moom fawu ngay jàpp di julli di sangu farata waaye eh, ni ko yàlla waxe wa jaxal naa minal maayi kulli seen ayin luy dund lu ne ci ndox lay dund yàlla na yàlla dundal nu aar nu sàmm nu nu fas yéene nekk nag taalibe yi sëñ Touba bu wér taalibe goo xam ne lu sëñ bi digle nu def ko lu mu tere nu ba ko te xam ne dëkk bi dëkku sëñ Touba la kenn ku ne ay forage lañ am suñuy dëkk yoruñu benn forage sax mais dañuy fay ndox di lijjanti ndox ma kon bu ñu amee ñu nu ciy jàppale di kii nu ni dañoo war a yëg ne dafa am lu nu ci war te dëkk bi it sëñ Touba ko sanc ba mu koy sanc moo ko sancoon kon ku taalibe bu fi ne dafa war a góor góorlu téye tànkam téye làmmiñam bàyyi xel sëriñ Touba te xam ne la fi ne woon du fi jóg bu mukk ndax ku donn sa kër maam donn sa kër baay xam nga ne keneen dana donn kër maam donn kër baayam kon nañ bàyyee baat beeg sëñ Touba lu mu wax nu def ko lu mu tari ñu bàyyi ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.